wetil mi ngi fi yaa ko fal. faluma ko de. ah ba bàyyi ko man nag yow tamit président askan bee lay fal. mandat bi ngay am bay dem ci international di wax ci sunu tur loolu ñun ñoo lay mandaté ñoo lay jox mandat wala joxuñ la mandat nag Moustapha joxuñ la mandat bi alors donc kon euh, à partir du 2 avril on est dans le pëccoxoo. total mm-hmm. voilà fan yi doo toog bés suba ba ngoon te gisoo benn euh, organisation internationale maa ngi liir sànq rek bu waa Berlin yaa ngi dégg États-Unis réagir nañu nga dégg CEDEAO am nañ réaction boo xam ne tamit euh, euh, xaw na dëggër tuuti par rapport ak bële nee nañ ñëpp nañ maanaam viré nañ waaw co coppite am na viré nañ nee nañ nañu respecté calendrier républicain bi Macky Sall face à cette pression sous-régionale internationale hmm. ndax dina ko mën a tenir ñu ngi koy commencé la mhm. oui les adversaires wala les les les les les les euh, ñi ko doon soutenir ñu ngi koy commencé la si mais day day continuer ba ci euh, aujourd'hui tu as entendu Diop si kii à l'Assemblée nationale ak tey posture bi mu am comme mm-hmm. yàlla ak yàlla oui voilà léegi et pourtant moom moo porté amendement bi très bien loolu gën a bizarre ci affaire bi moom moo def amendement damaa reetaan ba sama bët yi mm-hmm. mais euh, Latif bàyyi na mm-hmm. Youssou Ndour bàyyi na tu verras dans d'autres ñu bari dinañ ko bàyyi. loolu balaa ñoo ñëw ci gars beddeeku bi sax mais pression bi. waaw loolu la bi bi bi di dékku teg pression bi. mooy loolu conséquence bi loolu la. communauté internationale bi ñoom ñëpp ay rasu. ñëpp ay rasu. alors di ko euh, soutien yi muy doon am au niveau national rasu. mais il faut dire que Macky loolu yëngalu ko de. Mhm, yëngalu ko lu tax mu dellu taxu koo dellu ginnaaw. Euh, du dellu ginnaaw veyu discours am bi ci Facebook laa ne leen il ne va pas reculer du dellu ginnaaw loolu yëngalu ko. Mhm. ay déclaration ak ay communiqué. Mhm. noo yëngalu ko. mais su fekkente ne waa CEDEAO par exemple dañu jàpp ne protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance mhm. euh, dafa ne six mois balaa élection kenn warul laal li nga xam ne mu jëm ci code bi. ak texte yeeg yu ni mel. mu ne tamit datu élection yi dañ ko war a respecté def ko àpp ba mu amee élection bu mu ci munti doon ñaar yooyu bu dee respecté wu ko. Euh, CEDEAO ak taxawaay bi ñu am ni est-ce que du exposer Sénégal à des mais CEDEAO kan lay sanctionné ban légitimité la CEDEAO am. ah mais si protocole additionnel am bi ñu ko violé day tey. Mhm. da nga fàtte ne Sénat bi dañ koo di changé ko. ah ça c'est vrai après que qu'elle ait donné injonction de donner Ousmane Sonko des fiches de parrainage lu CEDEAO waxoon lan. Mhm. CEDEAO nañ ñu bàyyi. CEDEAO li nuy gis chaque jour ci violation seen protocole additionnel. Mhm. ñaata décision la cour de justice CEDEAO joxe décision de appliqué wuñ ko. Mhm. alors nañu tas euh, syndicat boobu noonu waaye syndicat de chef d' état. Mhm. nañ ko tas. amul kon kon yow su ma su ma la déggee seen communiqué defu dara quoi. comme gars yi ne non CEDEAO condamné na ko. waaw ñi ngi xaal mu gën a avancé ak yu ni gëmuma leen. CEDEAO gëmuma leen. am nañ dem ba sanctionné Sénégal ah. euh, pour. bu wax sanctionné wuñ ko woon yee passé bu Macky Sall respecté wu li nga xamante ne moo di euh, calendrier républicain lan mooy sanction wu CEDEAO sax d' abord il il prennent quel genre de sanction non mais par exemple embargo yi ñu def Mali Mali génn na CEDEAO bokkatul waaw mais avant avant laa wax impact la parce que def nañ ko fi Niger aussi pour défendre kii mhm. IBK c' était pour défendre kii Bazoum mhm. syndicat de chef d' état la ma la ay chef d' état lañ doon défendre défendre wuñ askan wi c' est ça la CEDEAO alors donc ñooñu noonu tey it seen communiqué yëngalul Macky hmm. déedéet xam na leen waxoo bu baax a baax xam na leen bu baax ñoom ñëpp ku ci nekk mën na lay génne seen loxoor wax ma ban chef d'état wu CEDEAO moom mooy doxal yoon ci réewam kenn ci ñoom kan kenn doxalu ci yoon ci réewam <laughs> waaye nen nen am nañ lu bari yu ñu bàyyi seen réew yi au niveau national. gars ñu ngi commencé dem démb Eva Marie Coll Seck claqué na la porte. Mm-hmm. Zahra Iyane naam demagul mu ngay xataraayu. Mm-hmm. Euh, gis nga tey Diop si euh, position bi moom ak réaction yi nga xamante ne def na ko te moom moo def euh, proposé amendement boobu ñu yóbbu ko fële le quinze. Youssou Ndour nee na d'accordul ci affaire bi ñu bëree bëri Latif Coulibaly moom moo njëkk dem liste ñu ngi commencé gudd ah. day gën a gudd. Mm-hmm. day gën a gudd. ñu bari sax ñi ko doon encouragé ci lii dinañ parce que saa yi gars yi euh, surtout nag euh, bu ñu gisul seen bopp ci mbir yi moom moom del seetaan les communiqués vont se multiplier hmm. ña koy bàyyi dinañ bëri ña ko doon xeex ñëw tafu ci kaw tu vois l'affaire mhm. le PDS s'approche waaw l'appel authentique s'éloigne mhm. ña ko faloon la mettre sur la touche ña ko doon xeex ñooñu la àndal tey vous vous rendez compte de l' affaire. Mm-hmm. donc euh, pression bi dëgg-dëgg nag mu ngi noonu. pression bi dëgg mu ngi noonu mais mais ak Ba. parce que bi ma déggee te Diop si nee na suñ ko génnee tamit moom dina doon candidat. te Amadou bu doonee candidat nee na ñu bëri nañ génn topp ji. bu ñu génnee kan. Amadou Ba fu muy doonee candidat. mais samp ndëndëm. fan. Sénégal. ñu jiñ la corruption. non mais nar la àtte ji. condamné guñ ko définitivement condamné guñ ko définitivement. waaw oui <laughs> mais est-ce que boobu bi ak boobu duñ ko condamné définitivement. fekk fekk bon neuf mois la mais euh, corruption délit la oui taf taf même pas un mois mën nañ koo taxañ mu jeex. mais il faudra ñoom ay preuve nag. Ah, parce que du yombee noonu corruption amul ci mbir mi amu fi mais pour yow dafa soxla mu am pour ñëw tëj la. Ousmane Sonko mais nekk fële na lu mu def xam nga booba léegi euh, foog naa li ñu ko fi wax bëri na neewoon naa ne dans tout ce qui se passe victime bi bii ci affaire bi Amadou Ba la. Hmm. moom lañ ciy wut. moom lañ ci ciblé moom ci ju parce que buñ ñu demee ba ci biir ne corruption amul mais ce serait de dire mais attends kon on aurait rek euh, reporté l'élection pour rien. Hmm. foog ñu wut agneau du sacrifice. foog ñu wut bouc émissaire et euh, comment il s'appelle Amadou Ba. moom moo nar a nekk victime de tout ça Amadou Ba bu bokkee ci élection dina ma yëm lool. ah maa la wax lii dina ma yëm lool Amadou Ba bokk ci élection 2024 parce que mooy cible bi. Hmm. il se il volé. man na buñ ko simpee dinañ fexe tamit ba du bokk. du bokk mais pas ñu génne ko mu mu mu jaar ci beneen du bokk du bokk du bokk am du bokk parce que résistance bi Ousmane Sonko mën mënu ko. Hmm. mais lan moo war doon taxawaayam kon parce que moom xamewuñu ko résistance xamewuñu ko fippu alors que alors loolu rek ko mën mhm. loolu rek moo ko mën a ah. moo ko mën a muccal parce que si Ousmane Sonko tient toujours ba tey jii nii lii xew ñëpp naa ana Ousmane Sonko l'opposition est orpheline mhm. n'a de leader mhm. kenn gisul Ousmane Sonko gis euh, le combat bi nga xamante ne lii musul am ci Sénégal yi gën a garaaw mais y a pas y a pas une opposition qui tient amul moo tax ma leen ko doon wax aussi bien Yewwi Askan Wi que euh, intercoalition c'était de la forfaiture tey jii nii ñoom ñoo may PDS doole bu ñu defee nii mm-hmm. ñoo ko dooleel ñoo ah. ko dooleel. Mm-hmm. mais moment boobu noonu ba nga koy wax sa waay waa Pastef fi dañ ma doon saaga saaga dañ laa yónni pour nga yàq xaw ma lan mi mm-hmm. ngi nii. moytu leen Pape Moussa waaw dañ koo yónni pour mu tas coalition lu nekk wax nañ ko. la conséquence est la ña nga may doole. li ma nii laa ko doon waxee doole boo may ñoo xamante ne ils sont chevronnés dans le système ils vont l'utiliser contre toi. ba pare dem rejoindre bi. ba pare rejoindre système bi. ça a commencé par taxaw et ça a fini par wàllu. Mhm. kon ñaari ñaari ñaari entité yooyu yëpp laa waxoon ñaari entité yooyu yëpp laa euh, bañoon parce que li nga doon. li nga gëmoon ne Pastef kese mënoon na dem te day am dara. ci élection day am lu ëpp li mu am nii. Hmm. Pastef avec ses alliés naturels bu ko demee woon muy am ci député mooy ëpp. li muy am ci légitimité mooy ëpp te bu boobaa lii nii du am. du dooleel ñële. mais dooleel nga ñële ñu ngi ni teru tey jii nii luñ la def utiliser doole boobu contre yow. Mhm. qui a levé le petit doigt contre les euh, multiples forfaitures contre Ousmane Sonko te Ousmane Sonko ñoom ñëpp la taxaw nag képp ku ci am problème mu jiitu. Mhm. ñu ñu ñu ñu daanelee ci Walfadjri ak seen licence bi ñu retiré définitivement lañ ko jël. mu jur coow lu bëri les gens n'ont pas compris hein euh, pour lu ndaw rek foogoon nañu sax euh, coupure signal bi la mais waa ji ñu gis communiqué bi génn mu notifié leen ne licence bi dañ nangu faaf. c'est trop facile yomb na torop parce que man maa ngi doon suivre affaire bi euh, moment bi arrêté bi di génn it j'étais sur le plateau avec Mass li ma li ma li ma li ma jàpp te gëm ko mooy ne aussi bien. Euh, Ousmane ko li mu réussir ci politique bi. Mhm. loolu Sidi Lamine moo ko njëkk a réussir ci média bi. oui mooy créer état d'esprit boo xamante ne mbindeef mënu koo disut ba mu safee. Hmm. del seetaan ex Walfadjri mooy ëpp doole Walfadjri. esprit la. mënoo ci dara lii ñu toog di def ni c'est du Walfadjri Paasan Seck day wax Maam Biram day wax kenn da koo mën a tere wax c'est-à-dire mhm, mhm, floraison médiatique bi am actuellement avec des journalistes courageux yu taxaw di mener les débats yi am solo les vrais enjeux de l'heure mais loolu noonu saa si Sidi Lamine moom moo mëne boobu révolution hmm. Cheikh Mouhamadul Amin rahimullah li mu fi fekkoon moom mooy ay journal yu euh, yoo yoo xamante ne bu ñu ne journal télévisé tu vois des gens en costard hmm, hmm, colloque symposium séminaire euh, conseil de ministre Sidi Lamine ñëw dem ca àll ba ca euh, fi mu laa xool béykat ya jox ko micro mu jàll journal dem Guet Ndar ca ba nappkat ya jox leen micro mu jàll journal la voix des sans voix la révolution médiatique là kan moo ko mën a ti arrêté mi ngi nii di incarné wu dans Sunugal 24 lu ci nit mën doo dem seeti baykat ya doo say journaliste duñ dem ci reportage dem ci àll ba ca nappkat ya ci Sénégalais yi ci bas peuple bi la la voix des sans voix les sans voix n'ont pas de euh, possibilité pour parler à Sunugal 24. Mhm. ils peuvent le faire. bien sûr ils le font dans d'autres organes. kon donc l'esprit que Sidi Lamine a musaa Moussa Bokar Thiam tuuti na pour fay ko. Mhm. te bu may dugg ci Walfadjri bi